mbokk yi daw leen gaaw ngeen wëri eh, yëg tawféex ndax nee naa la kat yow moom nga xamante ni yaa di góor eh, di gaaw a yëg sa bopp wala yow moom nga xamante ni yaa di góor di gaaw a daanu wala góor yi nga xamante ni sax eh, seeni awra dafa gàtt wala góor yi nga xamante ni seeni awra dafa tuuti wala góor yi nga xamante ni saa su nekk rek suñuy def rapport dañuy dem 2 minutes daal di bàyyi wala ñu dem 3 minutes daal di bàyyi waaye jàpp ni yëg tawféex jëlee na fi minutes yooyu yëpp indil la 25 minutes kon nag mbokk yi gaaw leen gaaw ngeen wut si yëg tawféex ndax moom mooy faj seen aajoo ay ca ci bëgg a jot da daal di def 77 193 13 78 77 193 13 78 mbokk yi coono ak dafay jeex ci réew bu Sénégal. Nampalis Mendy ak Youssouf Sabali bokk ñu tey ci tàggatu bi gaynde yi doon amal fii ci doxa Cheikhou Kouyaté moom it dellu seegul ci groupe bi ndax gaañu gaañu bi mu am ñaar fukki joueur de champ ak ñetti gol yi ño nekkoon ci entraînement bi bi lolu jàllee taskatu xibaar yi xaar nañ diirub benn waxtu danaka lata joueur yi di ñew zone mixte. coupe du monde lañ nekk di wax te bu ñu coupe du monde monde lañ wax ndax fi équipe bi fi nekk moom du càggin ni bo ñewé ba fii nii day wane ni que xarañte moo tax nga ñew fi waaw lu si am solo dal mooy comme lu ñu faral di wax rek entraînement yu ñu nekk di def ci semaine bi jour match bi yàlla def ñu ñu ñu répéter lu ñu def yàlla may ñu ndam incha allah. huitième de finale bi ak Angleterre la ñëpp doon waxtaanee ñëw na lu bëri ci laaju taskatu xibaar yi gaynde yi tàmbalee waajal jogante bi. xam nañ ne affiche bi moom affiche bu am solo la du du yomb parce que équipe bi euh, équipe anglaise bi xam nañ ne année bi passée rek moom moo final final final euh, euro bi donc. Euh, faut juste nous nous continuer nous ñuy def nous nañ depuis le début xam nañ affiche bi tamit affiche bu bu am solo affiche bu am manala après ñun ñu ngi fi hein ñu ngi ñu ngi def comme comme nous ñuy def comme d'habitude rek entraîner concentrer wu écouter conseils et euh, incha allah def le maximum euh, incha allah dimanche. ñu ngi préparer match bi nous ñu préparer yeneen match yi di ñaan yalla ñu dugg ci ci jamm génn ci alhamdulilah de toute façon groupe bi euh, ñun ñëpp gis nañ ñu mu démé famille lañ té ay doomu sénégalais lañ donc dañuy continuer liguey gëm suñu bop amul Angleterre lañuy ñuy jël amul France lañuy ñuy jël ndax danaka li ñuy gis ci réseau yépp ñun ñun joueurs ñun tek nañ suñuy bët té ñu ngi ñaan gaay yi ñu ci ay ñaan ndax français ñom japp nañ déjà ñom dañuy jéeg euh, Angleterre ba paré mais de toute façon ñun xam nañ lan moy suñu euh, lan moy lan moy suñu doole lan moy suñu kàttan donc dañuy dem pour gagner match bi inshallah taskatu xibaar yu Angleterre yi bari woon nañ ci entraînement gaynde yi. ñu ñëw ngir gën a xam ni équipe bu Sénégal bi di waajale jongante bi ñu dëgmal.